ñu dikkaat ak yéen ci suñu émission almunawir fii ci Dakar Actu euh, tey nag ñu fa yéene jàngat tuuti ci njàngalem Cheikh Ibrahima Fall euh, Babul Mouridine muy njàngale yu am solo yu mat a teewlu te bàyyi ci xel te xool la cay suñuy njëriñ ñu jafe ko te xam naa ne lépp ay njëriñ lay doon. Cheikh Ibrahima Fall nee na a kuy jàng loo gis xam ko waaye kuy liggéey loo bëgg am ko Cheikh Ibrahima Fall nee na a doom kuy root te feesala ana nooy tànqe di tuur Cheikh Ibrahima Fall nee na a doom kuy xool nit di gis ci moom ak mbon a doom boobu baaxagoo babul muridina nee na a doom nit mën naa tappale lali pexe ba jagal àddunaam waaye këru àllaaxira tappale ci pexe du ko jagal Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom xam yàlla baax na lool waaye nag am yàlla moo ko gën Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom nit mën naa def ci biiram lu mu jëful waaye biir bàmmeel moom mënu fa fekk lu mu jëful Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom ku nekk ci li la war di nga mucc ci li la war Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom baax ab sëriñ baax jëf moo ko gën Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom xamuma ndax bari ay taalibe dina jariñ ëllëg yowmal xiyaam waaye sikki sa kaw ma ne amuk taalibe dina jariñ ëllëg yowmal xiyaam Cheikh Ibrahim Fall nee adom ah, xam li yalla bind xam li mu bëgg moko gën Cheikh ibrahim Fall na ah, ak Baye Fall yomb na ñett rek la tuddu yalla liggey jox yalla ak sam say ciir Cheikh ibrahim Fall nee a ah doomi cheikh yi ak sang yi na ngeen gorlu ndax ño xamne ne dem gor ña bank seeni tank te la banque ay tànk tëral na seeni doom yi jigéen ñoom ña banque seeni tànk kon nag na ngeen ragal yàlla te am ngor Cheikh Ibrahima Fall nee na doom euh, jigéen xomb la loo xam ne caabi bu ne mën na ko tij mën na ko tijji xomb boo xam ne caabi bu ne mën na ko tijji nag euh, ngor jom fulla rek moom moo koy tëj cheikh Ibrahim fall nena, Adom ah, a yagul ñetti fan rek la bis bi nga ko tambalé ak bis bi ko ñepp xamé ak bis bi la ñepp bayé cheikh Ibrahim fall nee Adom ah, a ñaari jukko yi la gor di rawé gor nangutuma ak joxé ñam babul muridina nena aw fi deug du xulo ak xex fi deug moy liggéey sa alal ju lew di ko joxe te yàlla rek a tax Cheikh Ibrahima Fall nee na jëf leen jëf moo gën wax doom ñaq jariñee moo gën foofu ñaq jariñoo Cheikh Ibrahima Fall nee na bu ngeen demee ba jëmmi jamono daayira yi dina mel ne mbootaay jàkk yi mel ne waañ fu ne baatub laa ilaaha illallaah dafa jóge su boobaa dajale mbooloo te xamoo foo leen jëme baleen fa taxam fa nga jëm moo ko gën ta su boba nak mana nan mana mana te du yaw su haram denk na len na ngeen moytu jurom ramal ku bàyyiwul lu xaraam ci kuñu jegalul sonnal ku sonnul ci yalla sukkal ku sukkandikuwut ci yalla ak top ko bari pexé te jubul na ngeen ko moytu cheikh ibrahima fall neena wax juromi farata la am mana wax xam li ngay wax xam fi ngay waxee xam ñi ngay waxal ak ñu wax loola. Ibrahima Fall nee na ah ay gone ay xale ci la lépp nekk ci lépp nekk euh, ku leen romb te nuyuwoo leen adoom doom li lii war a xewi ëllëg Cheikh Ibrahima Fall nee na ah doom euh, da ngeen di topp yàlla ñun dañuy ut yàlla euh, topp nañu yàlla ba yëg ko dañuy ut yàlla ba am ko. Euh, kuy topp yàlla nag del julli di woor di joxe asaka tey aj makka kuy ut yàlla nag sa bakkan sa alal sa njaboot lañu la laaj dal di ne ku topp yàlla yàlla yërëm la ku ut yàlla yàlla gërëm la ku yàlla yërëm tàbbal la aljana waaye ku yàlla gërëm dangay ngay tàbbalaate aljana yow mi nga xam ne yow la yàlla gërëm Cheikh Ibrahima Fall nee na Adam man lépp lu liggéey di maye rus naa ko ñaan sama borom am na ñoo xam ne bu seen bopp day metti ñi ñëw ci sëriñ bi ne ko ñaanal ma bu seen tànk day metti ñu ne ko ñaanal ma te mën a dem hôpital mbaa yu ni mel waaye Cheikh Ibra moom nee na lépp loo xam ne liggéey dina ko maye man rus naa koo ñaan yàlla kon nit da war a fas jom Cheikh Ibra Fall nee na ku may tudd ku may tuddoo di tox di naan sàngara di njaaloo yowmal xiyaam doo ma gis am ko ku mësa ñëw ci Cheikh ibrahim Fall ne ko euh lutax ngeen ne ngeen ne ku and ak Cheikh ku and ak seigne Bamba tabbi aljana te seigne Bamba momul aljana Cheikh ibrahim Fall ne ko ana lan motax suñu borom wax ne ku and ak Iblis tabbi sawara te Iblis momul sawara wajana tek Cheikh ibrahim ne ko euh, Iblis da bon weddi digal mo waral ko ko top dem sawara bamba mi da bax top ndigal mo waral koko top tabi tabbi aljana cheikh ibrahima fall neena na boo raw ca gaaya ko upp doole bul ko nogatu bo xamee sikki yi bul ko wax na nga bari ay jariñ di jariñee te do ko puukare woo do jëw ko yalla bind te kula jëw nga bal ko do yàq alali ku yalla bind te ku yak sa alal nga muñ ko ku yalla bind nga yéene ko jam te ki xey jox la junni nga yamale ko ak ki xey laaj la jooni neena lolu lu am solo la euh, Cheikh ibrahim Fall neena ki am xel deug moy ki xam kagn la wara wax ak kan la wara waxal Cheikh ibrahim Fall neena na a ah, doom saa bu ngeen xeye na ngeen jël sen nakar def ko muy sen banex saxo muñ tay wéttalu ko daldi ne keneen ku ngeen wettile koo ku dul yàlla dana xëy bis bàyyi la fii ci addina dem armeel yi dem ci armeel yi bala fi kon nag euh, bu leen xëy ba jant so te tuddu leen yàlla te te te santu leen yàlla Cheikh Ibrahima Fall nee na bu ngeen demee ba ca kanam nit ñi dinañu jël wax def ko muy ay jëf waaye yéen ñi aju ci man lu wax ji bari bari na sax ci jëf te xam ne bu ëllëgee yowmal xiyaam saa boroom du mukk wax bay jëf Cheikh Ibrahima Fall mas naa laajte ne nit boo ko amelee bor ba mu xëy faatu ana ñoo koy jox ñu ne ko xanaa ña koy doon Fall mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ameel nañ ko bor te nekkatu fi kon Serigne Bamba moo ko doon nañu fay bor bi. am na ku mës a ñëw ci Cheikh Ibrahima Fall di ne ko Fall bul ma fàtte Cheikh Ibrahima ne ko ku bañ ñu fàtte la. da ngay def lu kenn dul fàtte euh, Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom euh, jirim nekkul ci ñàkki waajur rek nee na jirim dëgg mooy ku ñàkk xam-xam ak ay teggin nee na kooku mooy jirim Cheikh Ibrahima Fall nee na kuy def loo am say mbokk duñ ci mos say kilifa duñ ci mos booy dee dalay bett Cheikh Ibrahima Fall nee na ku ñaan may ñu la boo jëndee am Cheikh Ibrahima Fall nee na yéen waaraatekat yi waaraate woorul fexe ba ku la gis waaru moo ko gën a wóor euh, Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom ci la raw ci jëf mënoo koo dab mukk ci wax Cheikh Ibrahima fa nee na kenn du am alal fa yàlla lu dul danga nga nangoo joxe sa alal te yàlla rek a tax kenn du am doom fa yàlla lu dul danga nga nangoo joxe sa doom te yàlla rek a tax kenn du am ëllëg fa yàlla lu dul da nangoo ñàkk àddina jiit te yàlla rek tax Cheikh Ibrahima Fall nee na kuy gàttanu ku réer du nekk mukk ci aw yoon Cheikh Ibrahima Fall nee na euh, kër Serigne Bamba dees fay euh, rawe ci jëf waaye kenn du fa rawe ci wax Cheikh Ibrahima Fall nee na a dem leen di def lu baax tey bàyyi lu bon ak taalu bi nekkul ci saqal sa bop soli sa gar gaddu yet ak ay saak ak yere yu ak yi maxtu neena ak talube deug moy defal nga def bayil nga bayyi loy dugg serigne bi xam ko lu mu yek ko Cheikh ibrahim Fall neena bo boo noppal bo boo euh noppalu ci nit ñi da nga len di ak sab der ta bayi len ak senu der neena bo boo noppalu ci nit ñi da nga len di ak senu der ta bayi len ak sab der Euh, Cheikh Ibrahima Fall nee na ah doom a ma xeeb waaye man diine xeebu ma Cheikh Ibrahima Fall nee na ku jiite mbooloo jikkoy tan nga war a yor dal ne tan day teel a fatu di guddee tëdd di teela a yeewu naajee ubbi nee na kilifa dëgg narooy jikkoy tan na teel a fatu waaye bu mu nelaw na nekk ci yàlla bu xeye nek ci yalla ba mu naaj mu ubbi nek ci soxlay jami Cheikh ibrahim Fall neena adom ah, ku gem yalla da ngay nangu ay dogalam ku ragal yalla da ngay bayyi ay terem kuy top yalla da ngay jefe ay digalam Cheikh ibrahim Fall neena am xel deug nekul ci bari wax waye am xel deug moy jital sa alal ci sa bir ba mel Cheikh ibrahim Fall neena deremi na ngeen ci sakku ay te bañ koo denc ndax sunu boroom mi joxe dërëm ngir ñu ciy sàkku ngërëm moo taxoon Cheikh Ibrahima Fall nee na adoom bu dee julli mooy taxa fàttali ko yàlla euh, ku sëlmal dañ laa war a rey dal ne adoom jëlale naa fàtte yàlla waaye fàttali ko yàlla sax mooy bakaar dal ne adoom ana nit fan nga war a fàtte yàlla ba di ko fàttali dal ne adoom naafeq am nafiq dana julli dana wor waye nafiq du joxe alal muku, ta yalla rek tax dal di ne euh, moo ku jebal sa bop yalla tay joxe sa alal ngir yalla dañ nga ci nafiq Cheikh Ibrahima Fall neena adom wet gore wetul ku gore nam fu sori beug lu bari nango don jam te di as di dege te do wor jaayante lodul xati fas la dul fecc kon nag nañu xam ne euh, doon Baay Faal ci tur yomb na lool waaye doon ko ci jëf moo jafe Baay Faal dëgg du tux du naan sàngara Baay dëgg du fen du jëw du wor Baay dëgg du sàcc du agressé Baay dëgg du soli sagar du soli sagar du tilim Baay dëgg bokkul ak bayfal day jub mandu lum am jox yalla tay saxal tuddu yalla tay sam ay cëram bayfal deug day set civilisé sel di xéñu neex bayfal deug du am jot du taxawalu day am occupation bayfal de du théorie réalité la bayfal du de kessé du aw kessé kese la ak Bayfal, fal day xam bopam am lu muy jom bëgg sëriñam tay jëfe ndigal nang dogal bëgg lu baax bañ lu bon du am compte bancaire ci compte bàmmeel lay versé Baye Fall dëgg ay jëfam moy ëpp ay waxam Baye Fall dëgg du fausser rendez-vous du wax lu mudul def Bayfal deug euh bu mënul ñak mandi ci leeru yalla lay mandé bu mënul ñak tux day tuxoo ci lu bon jëm ci lu baax bay bay faal dëgg buy maajaal da koy def ngir dindi agré yi ak suufeel boppam waaye du maajaal mukk ngir dajale alal wala di maajaal di kar nit ñi di leen agressé di leen forcé ci ñuy jox seen alal bay faal dëgg day jaamu yàlla topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam topp njàngaleem Serigne Touba te roy ci abo abo rijalullahi babul muridin Cheikh Ibrahima Fall bay faal dëgg euh, du fecci du du tëgg du musique Baay Faal day correct Baay Faal du takk ay lam mbaa ay jaaro euh, bu ñu jawalee Baay Faal ak rastemaan Baay Faal du rege Baay du rege mais day réglé Baay Faal du bari wax jëf lay bari ab Baay Faal du ñaaw njortu du nay du iñaan day yaatu yaatal Baay Faal day am ak taalibe yaru am ay teggin di jëfe ndigalu sunu boroom yi moytu ay tereem Baay Faal day muñ noppi tey maandu sawar moytu ay détail kon nag bu ñu jaawale Baay Faal ak bàyyi bopp yal nañu sunu boroom defal ci barkib Serigne Touba ñu nekk dëgg-dëggi Baay Faal ndax ah Baay Faal dafa am yaay faal am ñooñu ña nga ca toolu Seex Ibra Faal ya nekk ci ndigal ya bàyyi tere yi waaye dafa am bàyyi foo ak yaay fol bàyyi foo ak yaay fol nag bu ñu leen mayee ba ñu marié na la óor ne booy fal mooy imam bi leen di maye kay seede sëy ba mooy bëy fal waaye war ngaa xam ne sëy boobu doom ju ca juddoo bàyyi bommaar la bàyyi bommaar la rek lay war a doon kon nag nañu xam ne bàyyi fal ak rastaman bokkul baay fal du musique baay fal du fecc baay fal du tëgg baay fal du wor baay faal day maandu baay fal du rege waaye day regle